السلام عليكم ورحمة الله مبوك انتنوي سين فوبال تي في نوي نالي بو دي ام بكت ساس لين اي خبار دي نلين سي سابالي دي نجوخ سي نيو جين دي مي تو دابا دمي دوري خباري سي اكتوالتي اوروب بي ام ام تان دونك ديني جيس استار فيل دروم غاني جيس نيوم وا مارسي اكسين مي ريو بغ فينال ليغ دي شامبيون 2027 نيو نيو نيو اورغانيزي كو دونك موي سما كلوب دو دونك مبوك سي خبار يي خامتي ام نان كاتاي دا انغلتير مان لاني واخ تروسار بي خام دا روز دونك وا وا ارسنال مان لاني واخ بون نوفيل ناخ كوبلي لودول جوي كونتر Bolton mais en championnat dina mën a ñëwaat juillet on sait que euh, aussi que ben xibaar bi Odegaard fin octobre la ñu la nar ñëw quoi fin octobre donc je pense que d'ici deux trois matchs là quatre matchs maximum et dinañu gis capitaine bu bu bu bu kii di Arsenal euh, ba tey si blessure hein Ethan Mbappé rek Mbappé mom aussi def na retour de blessure tay gis nañ ko si entraînement yu diid euh, mu une excellente nouvelle pour moi, mais une excellente nouvelle aussi pour euh, donc wali Lille ñi xamantene ne dañoo compter si bu baax a baax baax def na ay premier pas ak euh, entraînement avec le groupe c'est Rabio. Rabio, bi xamantene signé du côté de Marseille mom aussi tay ay photos je pense que gis ngeen ko réseau yi que ñëw na débuter débuté ay entraînement bu baax a baax Bach, baax baax mbokk yi bu euh, Barça aussi euh, donc John euh, Duran ñu ngi koy laaj attaquant du côté de Aston Villa pour ñoom ki war a remplacer Lewandowski joueur du côté de Aston Villa moom la war a un très bon attaquant je trouve qui fait de très bons matchs mbokk match yi xamante euh, amna tay na euh, nañ si considérer Chelsea hein, sans sans sans sans Jackson mais avec un très bon euh, donc coup bi double 3 buts netto double na beneen bi contre son camp en coupe ñu do 5-0 fait en huitième de finale, ça veut dire que Chelsea, bam, c'est fantastique parce que tu as du Neto, tu as du Joao Félix, tous ces joueurs-là. Maintenant, nous avons équipe qui nous a équipe teg benn équipe parce que on est contre Aston Villa donc da ngay Jackson le Sancho le Cole Palmer le xam donc euh, Enzo Fernandez c'est une équipe ñu raxas teg et pourtant donc euh, voilà Moi, la concurrence de base si Jackson faut continuer à frapper parce que Nkunku bi ma gis de moom Parole ben yon pour bàyyi la euh, donc euh, ak bi bi les postes. Real Madrid gagné na euh, lii di Deportivo Alaves 3-2 mu nekk match bu xamante ñom ñoo sonal bop sen bop et pour une fois depuis le début de la saison dès les premières minutes xam donc ñu teel duwel C'est si Lucas Vazquez, man loolan xass match yëpp surtout que toujours au Bernabéu supporter ñoo ngi xaar donc vite fait da nga wara a dalal sen xel et je pense que tay n'est def nek am maîtrise du ballon nous avons un un un un Vinicius bu un peu compliqué mais Mbappé il t'a un bi bu xamante passe euh, de Bellingham justesse technique contrôle charbon déplacements, déplacement c'est c'est c'est fantastique rien à dire donc euh, en première période franchement maîtrisé euh, voilà amul y a mën a wax quoi à propos premier mi-temps bi xamante ne nañ ko en deuxième mi-temps voilà je pense je pense que seen xel match Atlético de Madrid moo ngi ñëw mu je pense que dañu nekkoon dans la monopolise du ballon possession man man mii doon seetaan non nañ dugal Vallejo Vallejo jaay du gis gëj naa ko gis mu football Vallejo dugal ma ne nañ dugal Endrick Endrick de rejet il a fait des changements mais finalement Vallejo boobu xaw na yóbbu waa Real Madrid àlaxira ngeen baal ma si kàddu yi parce que ça donne doon titre par assurance bi ngay am avec Rudiger bu téye bal bi wala un Militao c'était compliqué pour Vallejo faut dire la vérité après, nous encaissons deux buts, tu t'es fait peur pour rien. Après, on, a 6 000, nous avons vu qui est au fond qui sont euh, Vinicius Junior, comme d'habitude. Non, 6 000, il faut briller et tout, nous avons vu qu'il euh, Concernant Hendrik, beaucoup de gens ont deux occasions de faire. Il y a deux occasions de faire, il y a deux occasions de faire, il y a deux occasions de faire, il y a deux occasions de faire. Mais pour l'essentiel est là, tu, tu 3 points entrant dans le match de, Barcelone, demain, nous avons fait. Donc, euh, nous euh, avons un point de Barcelone ce concurrent direct pour euh, championnat pour train championnat l'autre train match contre Atletico de Madrid derby Madrid leen day des tanks. on sait que ren jii à Atlético de Madrid. donc am ah, mercato bu am solo que ça soit euh, Alvaro mi ça reste na nouveau carrément mais Kono Gallagher adapté ou non, récemment dugal na on va voir Real Madrid avec donc Mbappé Vinicius et Rodrigo que j'ai trouvé très bien deuxième match deux très bons matchs déjà le but marque magnifique bi passe homme du match donc souvent nous qui ko souligné mais euh, fantastique match de de de Rodrigo gars tu ci commentaire wax leen noo de gisee waa Barça nag finalement Chesney la choisir pour mu ñëw remplacer qui di Ter Stegen mi blessé Chesney nag tout d'abord dafa war a régler dafa résilier woon korom mais dafa war régler ay détails ak lii di la Juve Juventus bu vous si loolu nag mën na ñëw donc du côté de Barcelone à noter que Barcelone dañ koy am transfert comme euh, joker médical Madame du du moment où am nañ joueur blessé mercato que na la pour le remplacer nga jël un joueur donc euh, ñu bëgg a jël kii di Chesney je pense que Navas la ñuy jël mais Chesney la jël comme euh, le gardien bi xamante ne remplacer qui Ter Stegen bi blessé blessé euh, bu metti metti yeneen match yi am ngaay meun mën nañu wax ne Valladolid par exemple euh, donc da doon jàmmaarlu Séville Séville a gagné 2-1 euh, le match de City en coupe aussi tamit doon jouer joué ak Watford ancien équipe de Ismaïla Sarr ñoo door 2-1 dëkk moo dugal euh, donc euh, voilà euh, ak Nunes mu nekk benn match bu xamante ne voilà Manchester City def na li war ba am ndam bi xamante sen seen supporter ñoo ko doon xaar gars yi wax na de wax na si action bobu kéré la xam donc Allemagne donc ak kii di euh, Espagne bi ñu dajee mu nee na ñu xaar ba léegi di ko wax trois mois après que amatul sens bi ñu ko waroon a wax wax nañ ko bu yàgg ñu xaar ba tey di ko soog a wax donc kii di Kroos donc muy bàyyi football euh, wax na bu baax a baax ci loolu. nouveau maillot baax Barça en deux mille euh, donc saison bii di ñëw moo tax gars yi gaaw nañ saison donc deux mille vingt cinq Euh, moom la ñu nii euh, je sais pas noo leen gisee mooy deux mille vingt cinq deux mille vingt six quoi xam nga noo leen gisee nag xam nga donc moom la ñu wax ne mooy prochain euh, maillot yi di wax ne gars yi maillot yi mu ngi disponible ba tey temps yi dama koy dama ko dul publicité lu bëri mais c'est toujours disponible au 77 352 31 01 maillot boo leen mën ci bëgg yéen con contacter leen ñu waxtaan leen ak ñun si WhatsApp envoyé leen ñu photo ñu jëndal leen ko leen nga nekk fii ci réew mi ak bitim réew. du côté de de de de Paris Saint-Germain Désiré Doué ak Vitinha tey entraînement ñu nek am ñom dañu am gaañu-gaañu on va voir d'ici euh, demain ndax dinañ euh, ci forme et tout et que est-ce dinañ retour de blessure parce que deux joueurs très très importants pour euh, Paris euh, Saint-Germain mbokk ñu dugal suñu gaynde yi tey jii donc ku si mel ni Pathé Mboup dafa duggal bi jox victoire équipe donc ñu do Lorient ñu koy féliciter c'est un joueur bu xamante aussi bëgg naa bientôt défal ko découverte

ne la ko mën wax ci plateforme yi ñuy wax ci moom Cheikh Sabel comme yeneen joueurs yi buzz bi ñu am moo amul amul buzz boobu mais c'est un excellent joueur bu xam ne mën na nekk doublure de Sadio ou ou Ismaël Sarr parce que début saison bu excellent la def. Ibou Sané aussi dugal na bii Ibou un joueur que je suis de très très très près quoi kii boo ku fàtte petit catégorie li mu doon wane donc félicitation boy et continuer à travailler lépp dina baax incha allah. Serge Sabaly a encore frappé Il ñetti bii la double, donc euh, lii di Ligue 2 française ñu mag Martigues ñu 6 heures Ibou Sané dugal double. mais Serge Sabaly franchement il bi ñoo ngi wax dañuy euh, de Ismaël Sarr Sadimani, c'est un vrai ailier moderne de formation sax est euh, capable de jouer ailier gauche ailier droite des doubles hors surface et très bon finisseur tey jii encore une fois elle te marque euh, donc trois bi et que xamnañ nañ ne les meilleurs buteurs sénégalais jamono bi c'est euh, donc Serif Ndiaye bi xamante 9 buts la am ñeneen ñi six buts la ñu am tey moom dugal na sept sept buts donc moy deuxième euh, sénégalais bi ëppale ay buts en Europe donc un jour à suivre et bravo mon frère avec trois buts yi xamante marqué nga ko gars yi noo ko gisee ci commentaire wax leen ma ko. gauche bi nga xamné ne foofu Vinicius nek lolu boko défé defee ko ci football parce que Vinicius li nga soxla ci excentré gauche bi lépp mu koy def lenn moo mën a nekk ñoom nga leen di Mbappé a ci côté gauche bi côté bi Rodrigo di nga Rodrigo Real wut un vrai renard de surface un un finisseur un vrai numéro 9. sinon bu dul jeu Real bi ñu lay demee Real day jouer comme ma rajax mais par exemple euh, Mbappé mhm. gis nañ match en championnat li mu comme Benzema même si c'est pas le même profil.

boo yooy noonu ñooy fubal boo yooyu noonu dama leen nangul ay Lamine Yamal boo yooyu noonu ñooy fubal yeneen booy ci def yëpp ay jour lam lañ xam nga parfois nga di ku naan Valverde Valverde Valverde c'est un bon joueur mais du star c'est un joueur moyen Gavi c'est un joueur moyen. foo <laughs> non non man li mu bëgg wax moom dama koy wax man damay wax pour wax comprendre nga léegi nag ñi nga xam ne ñoom tey bu ñuy wax football mondial alaan ngay teg teg Mbappé. teg ñoom Vinicius teg ñoom Lamine Yamal teg ñoom Pedri teg ñoom Florian Wirtz teg ñoom Musiala booy yooyu tey ñoo fi nekk waxuma booy buñ sucé wala booy bu ñuy voilà di ko sur côté de trop man je suis pas dans ça booy yi fi mën gars yi xam nañ leen booy yi fi mën gars yi xam nañ leen.